dolli ko sutura dolli ko itam teraanga ci dara ji yonent bi sàmmal ko liggéeyam sàmmal ko njaboot gi yëpp defal ko jaamu yàlla yëpp itam nuyu ñu ñu nekkal suñu techniciens yi ak suñu caméraman yi muy Tafsir ba Jaxu ak Madani ak euh, Abd Cheikh Abdourahman ak Lamine ak euh, Soxna Anta nuyu itam Abdoul Aziz ak Aline Diallo ñu fas yéene nag euh, Abdourahman ni ñu ko waxtaanee woon démb rek ci suñu tafsiru Qur'an ci wàllu commerce yi commerce bi nga xam ne yàlla ni mu gisee commerce ak commerçant bi nga xam ne moom mooy def commerce bi lan la ci yàlla subhanahu wa taala wax nee na ko daal fexeel ba maandu ci njënd ak njaay boo bëggee sa commerce avance riba day daaneel commerce ndax yam xaqullahu riba wa sa sadaqat yàlla nee na lu lew bu ci lu lewul duggee daf koy yàq comme nga jël brin almet kos ko teg ko ci néegu ñax daf koy lakk ba mu jeex moo jël lu lewul def ko ci lu lew ñoo ñoo yem kon mat na di bàyyi xel bu baax a baax moo tax mu ne nag euh, ñi nga xam ne gëmuñu ne ëllëg dana ñëw nu leen neex la ñuy dundee waaye képp koo xam ne gëm nga ëllëg bàyyi xel ne danga nga dee da nga dajeeg sa borom mi la wàcce woon ci kaw suuf dana la delloowaat defe naa loolu boo ko gëmee danga bàyyi xel lu bëree bëree bari lépp looy def doo jiita sa bakken waaye da ngay jiita sa borom xam nga Abdourahman nit bu jiitalee bakkenam daf koy indil ay problème mais bu jiitalee boromam du am problème kon jiitalal sunu borom te bañ a jiita sa bakken waaw bakken moom alquran nee na wa inna nafsa la amaaratun bi suu bakken du digal borom lu baax lam koy digal rek mooy lu bon lam koy digal mooy lu koy gaañ lam koy digal mooy lu koy gàllankoor kon kenn ku ne ci ñun war nga ngaa moytandiku sa bakken bu baax a baax a baax bala mu laa gàllankoor ci lu bëri moo tax mu ne allah yasunu ulaayka annahum mabuusun nit ki fi ngay xamee ne Abdourahman kii gëmul ne dana dajeeg boromam mooy ci jëfinam xam nga nit ku am kilifa neex naa xam ku ñàkk kilifa neex naa xam gis muy taxawaalo ah, dafa amoon benn waay bu ñuy wax duut jaw mu nekkoon tuwaawoon ci cawen la doon jànge mu doon jàngee ci école euh, bi ñu tuddee sëñ Babacar Si français la doon jàng bis ñuy waxtaan ci daara ji débat yi ñuy def ci daara ji mu ne ma Iran man de bépp xale bu jigéen bu ma seet guddi jot ma ne la booy demal tëddi ngeen ne ma kenn du ma laajte su may takk du la takk ndax xam ne amoo kilifa ku kenn du laajte baaxoo seetal boobu xalaat demal tëddi mu ne ah man kenn du ma laajte nee na bu may takk du takk ndax xam ne amoo kilifa jigéen da koy oo téléphone ne ko ñëw fi mu ne ii xanaa xooloo heure bi yow kay bu ne ii rek nga xam ni kii am na lu muy ragal waaye bañ génnee baatu yaay bañ adduna tukki na yaay bañ moom moo lakk dëkk bi waaw est-ce que guddul mu ne noonu yow kay yaay bañ nag waaw noo ko bëggee foo ko bëggee mais boobu diis na oyofal ko nag amal kilifa ñu xam ni kii dafa am kilifa waaye nga ñëw seesi Abdourahman mu toog ba mu yàgg ne laa onze heures jot na de ngeen moom man de kenn duma ma laajte nañ toog waxtaan fexeel Abdourahman boo demee bay def farata moytul kii ndax ku ndey di dund bàyyi di dund say mbokk dund te yow kenn du la laajte baaxoo kon kenn yilifu la kon moytu ko amul kilifa baax na di jëflante ku am kilifa baax na fekk yaa ngi am koy booleek nit ki mën ngeen jëflante waaye ku amul koo ko boole boo jëflante moom da nga yàq sa jëflante rek mhm. moo tax mu ne ñu bëri gëmuñu ëllëg moo ne li yow min azim nag bis bu garaaw la bis bu màgg la bis bu rëy la bis bu diis la parce que li tax yow ma ëllëg diis mooy doo gis ku la àtte doo gis ku téye loxo yàlla kenn sañul ne yàlla bàyyil jàmbur foo ne sa bopp ngay tal ba doo tal sa morom kon fii ci àdduna nag nañu góor góorlu suñuy jëflante di ko sellal ñu bàyyi xel yow min azim bés du ñàkk li yow min azim tribunal ci la bokk li yow min azim police ci la bokk li yow min azim gendarmerie ci la bokk li yow min azim douane ci la bokk parce que mën ngay dem euh, euh, Gambie bala ngay dem Mauritanie Rosso di jël martinis yow ma daan yi di rëcc duy ay camion di rëcc waaye bés a ngi ñëw billahi danañ la mas jàpp lépp lu nit di def ci loola du yoon wala nga di ko def muy lu baax nga di ko nëbb baa lu bon bis dina ñëw mu fis rawatina lu bon jësal jëlal sa camion rek ma daani di dem Gàmbi rek di rëcc di dem Gàmbi di rëcc di dem Gàmbi di rëcc ba million yi bëri ba nga yegg ci un milliard et benn bés ngay dem Gàmbi rek gaa yi ni leen nii nangu marchandise ma valeur genn wàll million nag lañ nangu alamaan la itam nag million léegi milliard baa ngay bëgg a jeex ñu bàyyi la nga fay ko ni naa demaat maanaam naa jekkale xaalis ba ma dencoon naa ko alagi rek nga delluwaat jëndaat ne bu ma ko jaayee danaa génnaat nga ñëw ne tëll gaa yi ne leen nii nangu ko la desoon ca million ba jeex na ñu alamaan la loo amul dóor la ci kaso bi nga génn nag yor bolog bu xotteeku yor carax yu bon di taxawaalu ko defee ko dee mu ne waa ji ak am xaalis fraudeur la woon fu ni la daan dem di indi marchandise tey daan gis nga waajoo fi gis ñuy coow alalam secret ba ko may da koy nëbb waaye dina ma sa feeñ maa la ko wax du dañ ba ñëw mu feeñ moo xam dorog ngay jaay moo xam looy jaay te gis nga ñaare eh, koo gis muy collaborer ñiy àtte dëgg mu ngay def lu du dëgg jéemoon xaritu avocat xaritu àttekat ak xaritu gouvernement bi borom alal boo gis ñaare mu di ko def daa ne ci njubadi bëgg bu feeñee ñu jàppale ko waaye ku jub looy bëri xarit loo koy doye xanaa xamoo dafa am loo xam ne boo jàngee almu naf si neex naa xam kii ku jéem a bu Macky xewle nga dem gaari say oto suy campagne nga abal ko ay kaar lu xew njàg lu mu xewle nga nga teew ca lu mu bëgg nga def ca di kër këri yaa ngi sóor li ngay def ëllëg boo feeñee ñu ne ah ma daani nag waayu président la ñu teg dossier bi ci suuf waaye dossier bi day jogaat parce que bu fi président jógee kenn ku ñëw du ko yëkkati xaritoo xaritoog ñëpp Cheikh nee na ku xaritoog ñëpp di sa noonu baay ñu ne ko lu tax mu ne ñi nga xaritoo ñàkkul ko ci bañ sa baay sa baay ñëpp bëgguñu ko di kon ku xaritoo ñëpp rek bañ nga sa baay dafa neex soo jubee fu la neex taxaw soo jubee loo bëgg a wax wax soo jubadee da ngay am frontière lu yàlla ne lépp looy def suural bés ne dina ma sa ñëw li yow min azim mu ne yow ma yaqumu naas ji nga ne yow min azim dafay am xam nga mooy bis boobu di dis kenn ci yow ama daana mes massa massa massa lii yàllaa ko dogal ndog la mën toon a ñàkk ah Abdourahmane ñu woo ah, sa boy bëggoon naa fi ñëw mais garaawul quoi parce que lii moog addunaa ànd waaw gis nga danga amoon yaram nga xëy jeex tàkk wow koŋ yàlla sunu borom نين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نين فمي جن مو غراو فو فوغي من تل تي سكاو تي يالا نين سوما نا دان تي سكاو ني ييك ني كو بري دولي دال نا سكاو مادنا باي خيل دي نايس جيجين دي نجالو ام اي مويم بن موي جيفانيكو كيس زكار موي لول نين دي تودي خاوما لان بروتيك لا خاوما عرب ديكو تودي كيس زكار moom ngay jël di jëfandikoo ay kàppoot ak naa def ay affaire ak bi siy ñëw yàlla mooyal ko nga jël say matuwaay ba defe ne yaa ne njaalo ba féex dem tëdd toog ñetti yàlla li tax mu garaaw dalay bàyyi ngay dox ba bés nga ne man daal tam gëñ naa gis règle nga dem hôpital sage-femme bi xool ne yaa ngi ci six mois six mois ko yàqee nga ni six mois ci la ñuy li dangaa biir nga ne ko non non xanaa seetaatoo ko man yaa ma joxoon affaire bi ma jëfandikoo ko yàlla <laughs> mu ne ah def nga ni ma la ko waxee nga ne ko noonu laa ko defee bii dama koo naan bii ma def ko fii bii ma def ko faa yàlla ne la man sama dogal lu ci ay comprimé man lum ca man moo tax sooy def defal lu jub wallaay fi may wax ak yow jigéen a ngi ëmb te xam nga ëmbam lu ko teg pour moom non non dafa dof parce que def na mooy yëpp ba yaakaar ni du ëmb lu bon moo matam moytu bu ko defee day dis gann ci yow nag te yàlla dafa doy waar yow ma yaqumu naas nag li rabbil alamina mooy bis boo xam ne ñun ñëpp yàlla dañuy taxaw ci kanamam nag mu ne masu leen maa gis de ñu ne ko déedéet daan ngeen dégg samay kàddu ñu ne ko waaw mu ne tey nag lu waay nekkoon dana leer yow ma tubla sarairu fa maa lahu min quwatin wala naasir tey nag lépp lu waay dencoon dinaa ko génne danaa leen atte yéen ñépp teg leen ci yoon ah nañ koy bàyyi xel waaye topp alal rek topp jigéen ñi rek topp daraja rek topp oto yi rek topp kër yi rek topp compte yi rek topp voyage yi rek ba bés jot nga war a dem voyage boo dul dellusiwaat muy bàmmeel nag bàyyi ko xel baax na mhm. yow ma yaqumu naas li rabbil alamina lu mat a sóoraale na nag bàyyi xel bis boobu ba mat naa sóoraale mu mel ni nag laaj bii moom kii dafa wax ne eh, sama jëkkër dama ko ñaan baat mu bañ parce que dafa ma fitnaal torop dem naa ba bëggatuma ko ndax lor yi may lor te xam naa mënatumaa continuer bi ma ko ñaanee baat bañ na dem naa ci samay mbokk nag sama papa moom maye woon dem na ba ci moom mu ne ko duma ko may baat tey duma ko may baat ëllëg loola doyul dem na takki beneen jabar léegi man maa ngi tumuranke am na ñu at boo xam ne gisuma ko ci nee na duma may baat léegi nag man moom takk na beneen jabar mu ngay faj soxlaam waaye man nag mu ma bàyyi fi may tumuranke may laaj lan la ma charia wax ak gannaaw man dem naa sama baay mi ma maye dem nañ seeti papaam mu papaam oo ko mu lànk sama baay dem na ci moom mu ne duma may baat léegi daal nee na fasewu ma tey fasewu ma ëllëg te bépp góor gu ma takk dana ko jëflanteeg moom atum yàlla joxuma dund toog di ma seetaan lan la ma sariya sant demal ci yoon demal ci yoon gannaaw ñu war a toog toog nañu ndax loolu la alquran doon digal fa baasoo xakaman min ahli wa xakaman min ahliha yàlla dafa waxoon ne sëy bu amee problème nañu dellu ca euh, nu mu tudd famille ba ña ko doxoon nañ ca delluwaat muy famille góor gi ak famille jigéen ji ñu bokkandoo toog wax su ko defee ki maye ndaw si ak ka ñaan si ndaw si ñu ñu waxtaan mën nañoo déggoo sëy bi continuer wala ñu mënuñoo déggoo ñu fekk ci bi ci njëkk ak teraanga gannaaw nag kii amul kilifa nee na waccul tey waccul ëllëg bàyyi wax na ko mu ne fasewu ma sa baay dem na mu ne waccu ma takk na beneen jigéen dundalul woddul yóbbu leen ko ci yoon sidaa ji maa di daan wax ni bu fi tubaab bi nekkuloon laa ilaha illallah dana tër laa ilaha illallah rendi ko tey man bu ma tasi sama sëyu doom wala Abdourahmane tas sëyu doomam ma daani mën na maa yóbbu ci yoon ma am problème waaye bu yoon tasee sëy procureur sëy bu mu tas dalay jox ay matuwaay eh yow Abdourahmane laa bis bu ma la déggee nga laal ndaw si wala nga wax ko benn baat ci kaso bi nga jëm booba nga cay pare. ñaareel bi mooy lan muy ujje ndax wujje mooy li xew Sénégal dama bëggoon nag yenn débat yi buñ koy defati dañu woo mag ñi soo woowee benn ku mel ni. Euh, soxna soon nu mu tuddate ku mel ni yaay xaar mbay ma jaaga maam xaar xaar mbay ma jaaga mag la xam na lu bari ci àdduna ñooñ ngeen war di invité ci plateau yi wala ngeen jëli leen seen kër ñu wax leen luy wujje seeti mag ñu mel ni ñu yàgg denc soxna ñu mel ni alaaj sàmba jabare sàmb mag ñooñu mas naa dégg mu def benn émission yàgg na booba gën naa nekk xale muy laajte ñu ñuy poser question wax ne jigéen num sant ku ne wax nii la jigéen sant nii la jigéen sant ba émission bi jeex ñoom ñu doog a tontu ñu wax ni jigéen riccu la sant riccu sa jaba naan fase ma may ma sama baat man yaa ma fi téye di relli relli nga ko fase naa la mu yenu loxo ya daw song yaayam yaay ji ni ko lii nu mu demee mu ne ko dama doon kaf léegi nag ñu ngay uuti sëriñ regret dugg na mag ñooñu ngeen war a oo gis nga mbir boo ciy laaj da ngay laaj ka ko dund ba pare waaye ku mel ni Anta mi koy laaj wujje kii lu mu xam ci wujje kii daa am jëkkër bay wujje kii wujjewule kenn ki ki ki ngay laaj kujje mooy ku dund kujje jigéen ji sëy ba màgget saatlu ak i wujjëm kooku boo ko laajee ku jëman na la ko wax Serigne Cheikh nag dafa wax ni wujj baax na wujje moo baaxul madaani rek doon fi caméraman wuurul dañuy chantage buggaan da koy neexal ba sonn waaye sa waay foo ne sa waay yeewoo ko ma yebal oto bu la jël si parce que xam ne moom rek ko fi man moom it day dof dof lu suñu kaw waaye su fi junni caméraman nekkee ku dof dof lu ñu jël keneen misa piyeere rek nga yor moo tax wujj baax na mais wujje baaxul papis na fi ante fi ñuy buuxante lu ngeen di buuxante kii ne dugale bouton bi kii ne du bii kii ne bii la ku ne di ko defante kuy ñëw takk téere ñi indi saafara dem di boolante ci bugaan ku xëy woo bugaan téléphone kii def na lii kee ko kii def na lii looluy wujje baaxul amul njëriñ góor jarul xëccoo xëccool yàlla xoolal madaani adduna bi yëpp ñoo bokk yàlla mas ngaa dégg réew muy xeex naa lu tax waa ji li ma ci yàlla mas ngeen koo dégg mas ngeen kër kuy xeex naa lu tax waa julli ti julliwu ma moo ne bu euh, jii bu sa sa jëkkër duggoon sa néeg morom nga xul yow xëccoowoo yàlla xëccoowoo jàkka ja xëccoowoo dara ngay xëccoo wujji wujjaamul solo parce que wujje madaani képp ku koy def da nga def loo mënul danga nga leb cuuraayu jàmbur leb feri jàmbur ah dem leb parfum yi jàmbur neexalee ko sa jëkkër leb gañilaawu jàmbur jox sa jëkkër pour noo ko moomee dalay tardeel dalay tar tardeel say jaamu yàlla la bu ante xëyee na xam lu Abdourahman bëgg xam ne moo ko jëlee kër ndeyam ak kër baayam lum ko digal ci lu baax mu def lu mu la tere ci lu bon nga bàyyi sa morom mi fi ne na jël àqam ma euh, tafsir ma ba deux voies amul deux voies amul oto bu ne fu muy jaar ñu bàyyi tere bi ci digg bi ci digg ba mooy jëkkër say deux voies la kii ak yoonam kii ak yoonam trait bi ne ci digg bi képp koo xam ne fekk nga sa morom ñu ngi koy xamee ci trait bi sooy wàcc dal ci sa morom ñu ne kii moo awul yoon jeex na lii mooy sëy mais wujje pour lan la takki téere këfalu fii sangoo saafara toji nen suul béjjén fenal bu sa jëkkër ayee ngay fen lu ko fi jar góor da koo jar sey jàmm yàlla dong la soo defee la la war jeex na kon deux voies la ku ne na jaar ci yoonam ngeen jàmmoo yéen a bokk tali bi kondir mu dem jeex na amul leneen li ci des ay caaxaan la rek fa defee loolu mooy wujje amul leneen donc lool rek mooy attee ci wàllu wujji wujji nag baax na Serigne Cheikh nee na baax na mais wujje moo baaxul mooy defante rek ah defante nag baaxul day tàngal lépp lu am mënta fay boo fi lebee cuuraay fa ngay mujj sëkk ko ñu gañe la de parce que sa wujja lay gañe ndax da ne fii di këfaloog lu ne nga dugg ca looy këfalu ba yo téyel li nga yor rek ba ba nga yokk ay ca lu ñu amoon ci waxtu wi jeex na euh, ñu tàggu leen foofu ki doon def waxtaan mooy seen mbokk Iran Ndao kon ñu tàggu leen ba suba ci waxtu incha allah lépp luñ ci àtti dëgg yal yàlla jéggal lu ciy dëgg nag yal na ko yàlla def yu boole ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi ba suba ci waxtu wi